Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV il le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. alors salam asalaamaaleykum asalaamaaleykum Sénégal 4 TV comme ni ñu koy defee saa su nekk kontaan nañu dellu si waat ci seen euh, semaine de la femme mouvement sous semaine de la femme sargal jigéen ndax 8 mars bi

alaikum Awa ma ngi len nuyu di nuyu équipe bi nga andal di nuyu également ñi nga xamantene ñu ngi ñuy suivre ci euh, Sénégal 4 euh, TV am mbégte euh, dalal leen fi ci RFM comme niñ ko waxé yene ngi Medina rue 15 angle Corniche RFM. <laughs> alors bu ñu yàggal parce que dañ ko fekk ci liggéeyam malgré lolu mu accordé leen interview bi. Mm. alors dañuy ñëw rek ci tay début. Mm. nga nekk ko xamné ne yàgg nga ci animation. nan nga commencé animation waaw animation bi nag booy xool euh, chaque jour moo ko ci interview yàlla peut-être moo ma def animatrice parce que tout au début nekkul woon sama vocation donc euh, maa ngi doon jàng tranquillement mais à chaque fois fële ñu ci lycée Malick Sy euh, nit yi dañ doon dama daan maa doon yore micro bi ci yenn manifestation yeeg ak bu dee am concert ak affaire yooyu donc nit ñi à chaque fois dañ ma doon wax macha allah sa baat bi dafa neex pourquoi ma ne leen non man daal hôtesse de l'air laa bëgg a nekk parce que j'étais TikTok fa mu fekk ma ngi bëgg ay ay ay solo disquette ak genre yoy donc loolu mo nekkoon euh, li nga xamanteni mom la bëgg mais comme ni nga ko waxee ma nekk nit ko xamanteni yalla yàlla daf ma bind également ma calme té peut-être métier animation andul won ak loolu donc euh, loolu motax sama xel musul won euh, xalaat sax peut-être nekk ko xamanteni dañ koy ragné nekk ko xamanteni dañ lay xam ci côté audiovisuel et tout ça donc nekkul won sama vocation mais yalla mom bu la ci bëggé bu la ci bëggé dugal mëno ci mëno ci dara je pense que sama destin parce que je koy euh, déjà dañ ma wax me rek ma Souma muy animatrice bu mag période boobu bëriwul woon noonu animation animateur yu bëri donc Michael mu dugal ma ci équipe ñoom yaa xam caam et tout ça ñu nekk sama ay grand frère sama ay grande sœur euh, jàngal ma lu bëri ci métier muñ bi ak euh, patience bi loolu yëpp foofu laa ko jànge donc euh, ba ni nga xamante ne noonu lañ doon ubbee Thiès FM Michael suma laa àndaloon dem foofu moom mu defal leen jingle voix ci ci nasaraan man ma defal leen benn ma man ma wolof donc ci fofu que la ñepp doon bi kan wax kan wax wax les gens m'ont demandé il faut man ma dem fofu bobu awma won sax salaire donc dañ ma doon <laughs> dañ ma doon j'avais peut-être euh, quarante mille par mois mais Thiès sama Thiès mom à chaque fois dama koy netali loolu moma gëna marqué euh marqué ci ci ci bëgg sax animation bi parce que au fur et à mesure ma don def animation ak nit ñi mbëggeel gi ñu ma don wane ak euh, ñaatam yi nga xamante formé won nañ ko partout dans la région de Thiès may dem fu nekk en plus de 200 cent ñaatam euh def ay fans club nit ñi di ma woo fu nekk may dem donc je pense que loolu nonu mo don gën li nga xamante moma moo ma gënoon poussé à ce que man ma bëgg man ma bëgg métier bi ba yalla def Eva Mbaye jugé fi Eva Mbaye jugé fi euh, ñu doon wut anima animateur DJ Boops euh, ma xamanté won ak mom ci ben euh, ben ben ki bo xamante ben événement bo xamante amone amone amoon na fële Thiès moom mu nekk yoron sama ay coordonnées biñu démé bay wut ay animatrice bu wara remplacer Eva Mbaye il a pensé à moi donc ñu woma ma ñëw fi ça s'est passé naturellement vite fait j'ai rencontré suñu ñi fi nekkoon di suñu ay njiit kenn tegu ci baat jour bi ma ñëwé le lendemain la dem wax ko sama papa wax ko sama yaay euh, ci biir semaine boobu laa commencé liggéey remplacer Eva Mbaye donc toute la journée ñu jël ma ci émission yépp boobu ba léegi depuis 2006. maa ngi groupe Futur Média. mën nañu ne sax say début Thiès la woon comment ça s'est fait nan nga dundee jógee Thiès ñëw fii Dakar bon mu metti won torop nag parce que man xam nga man dama fidèle man buma xasse japp jàpp nit si sama xol rek du bëgg lu mu dañ mais heureusement que Dakar Thiès soriwul et puis après ñun bima ñëwé fi fii Thiès ñun dañu am ben fréquence foofu donc gaay yi ñima ma doon amoon Thiès ñu ngi ma doon déglu ci ci RFM euh, donc euh, mu nekk ben ben ben déclic bo xamante bouleversement andi woon na sama vie parce que ki ma remplacé aussi neexul won remplacer Eva Mbaye ñëpp xamone ko et tout mais yalla mo def destin la parce que premier morceau bi nga xamantene mom la tek bi mi mujjé animé RFM man bima ñëwé musuma déglu Eva musuma ko xamanté wuñu morceau bobu la ubbee muy jigen bu Fatou Guewel te je savais même pas que né lolu lolu ben animateur ben ben ben auditeur mom momako wax en direct donc mu nekkoon lo xamné daf ma marqué trop mais nak euh, sante Yalla parce que ba légui ma ngi garder sama ay relation à Thiès bien vrai que dama fay gëj dem ndax euh, autoroute à bi sumay dem xombal ci ginnaw lay jaar <laughs> mais bon on a de bonnes relations

mais machallah machallah xam nga mbir buy dox rek xam nga nan nga koy xamé ku nek day bëgg def la même chose mais man à chaque fois lumay wax ci samay interview rek man dafa am jaar jaar bo xamanteni dama fa jaar ba paré yalla bindé ma no xamanteni peut être am ñu bëri ñoo xam fay wuté euh, nit ñi ni ñu mel fay wuté lool da fay feeñ ba ci seen bir ay liggéey en plus ku nek ak talent bi nga xamanteni yalla def nak amna ko am def na formation bi ñew def animation am ko xamanteni dafa juddu rek yalla def ko ci mom bu waxé ñëpp dañuy contane mais loolu tax bu mu tax nak nga nga nga nga nga nga nga fàtte lu bari parce que lo nek rek lo doonul talibem do nek serignam parce que man ba léegi damay jang te boy xol ci animation xana léegi ma def ci dix-huit ans wala dix-neuf ans donc euh, tey euh, te ba léegi damay jang ba léegi ma ngi si di continuer donc bima ma xamee tay ji jii euh, technologiquement mbiri changer changé nañu dama ñëw ba Dakar liñ ma jël taxul dama jangi j'ai fait des cours par correspondance ba am sama diplôme international de présentatrice télé rajo yore ko et puis fuma dem woné ko mu leer ma ne métier la buma ma bëgg te ba légui ay présentation scénique ay leneen ak leneen yépp ba légui dama koy jang buma ma ko xamné xam ne na ma dimbali dama duma ma jël sama tank dem ba ci mom demandé ko ay conseil am comme ay professeur Massamba ak ñenen ak ñenen ño xamante ne yàlla def na leen lolu pour revenir ci sa question lolu bu la ko yàlla mayee ba pare aussi da ngay euh, remettre en cause ce ce ce sa li nga xamante ne mooy sa moy sa dundin parce que télé ak radio du lo xamné ñu ko war a fowee donc boo demee ba di ko def côté accoutrement côté ni ngay waxee côté solo loolu man à chaque fois bu nit jëlee micro loolu laay njëkk parce que dama naan lu xas jàll jàll na mënatoo koo surtout direct voilà lu am solo parce que mm. euh, la boo xasee wax rek. jeex na c'est fini jeex na jeex na. Euh, beneen mbir du sax féete ci radio parce que télé bi bi muy doog a commencé déjà je pense qu'il y avait amna directeur général yu directeur yu bëri ku ci melni ay euh, ñom Moustapha Diop ay maître Diop ay ñeneen ak ñeneen ku ci nek mais bima ma man groupe Futur Média li ma fi indi won moy radio té buma démé bay def télévision comme ni ma la ko fallait ma am ci notion bo xamante dina ma permettre tay ji background pour ma mëna a dem toog di présenter télé biñ mako waxé aussi aussi euh, bon yalla def euh, maa ngi fa commencé won ci ben émission ay mission yu bëri def naa ko ci ci télé bi lu ci mel ni ay relève bi ay yeneen ak yeneen yoo xamante ne tey ba léegi génnul sama côté bi ma doon def mooy côté animation mais ci groupe Futur Média yàlla dafa def bi télévision bi bi juddoo am na ñoo xam ne dañ leen yóbbu ci télé bi am na ñoo xam ne dañu resté ci télé bi am na ñoo xam ne dañuy def télé ak rajo loolu daf ci am télé ak rajo boo ko déggee ma fekk ni tous les jours damay def radio. donc tay donc munuma tous les jours ma def télé tous les jours ma def radio, tous les jours ma def leneen parce que groupe futur média dafa vaste donc légui li ñuy def moy ñom ño yoré sen ay programme buñuma soxla ci benn mbir woo ma ne ma ñaatam kay def li ma dem def ko suñuma soxla ci radio bi radio bi sama programme day changer parce que commencé won na fi di liggéey le matin def goudi nuy dee fans la commencé won wacc di def émission ak Boubacar Diallo ba légui ni may def 17 18 donc programme d'échanger parce que ça dépend at ni changé non programme ci mais pour l'instant, do ni ni mais déjà mom la parce que <laughs> tout au début bi bi bi bëgguma dara voilà tout au début dara mais euh, comme groupe la ci benn mbir def mais buñ ma ci benn mbir demander je reste à ma place mm-hmm. voilà Sénégal 4 TV yow yaa ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV mooy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV